ba tey ci seen scandale di jour de ce 3 vingt 2024 fii ci VIP People kii di président Macky Sall nag xam ngeen ne démb dénn na léegi nag moom dem na président Macky Sall génn na gis nañ ko démb euh, après juste passation de service bi moom génn na Sénégal dem na gars yi nee nañ sa fekk ko fi voilà donc mu ngi noonu ñu dem déglu ki nga xamante ne mooy Coura Macky li mu wax ci président Macky Sall ginnaaw bi mu pare ba delloo lenge yi ba daal di jubal fi nga xamante ne mooy Maroc. fii la juddoo fii la yaroo fii la jànge fii lañ koy gunge këram gi muy dem nii ñu koy ñaanal nag bu baax mook jabaram jooju yàlla fu ñu jëm. yal na leen yiwu yàlla jublu yal na leen yàlla jàppale man moom dama feer ci ñoom dama feer ci ñoom amul kenn ku am ma xam ma taxawal la ci naaj nii ak honorable député yii ma taxawal ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal jomaay mi nga xamante ne ni yàlla moom la jël teg ci loxoom 18 millions habitants ma ne ko yaa ngi jàkkaarloog ñu iñaan ñu soxor ñu bari pexe yal na ko yàlla jàppale ñii di yuuxu Sonko nii tey jomaay la ñu waroon a yuuxu mais di yaa ngi gis ni ñuy diviser encore jomaay moo xew la tey moom lañuy ñaanal yal na toogam bi jig senegaal te jig te yàlla jàppale ko waaye ñun Macky la ñu am moom la xam ku yor Sénégal nag dinañ la ñaanal. jaajëf jaajëf am naa dañuy jëlaat beneen rek. allahuma amin allahuma amin yal na yàlla nangu ñaan yàlla defal leen jàmm ak salaam euh, fu mu jublu yàlla na fa yàlla yiw yàlla jublu donc nag mu nekk loo xamante ne historique la ndax président yaakaar naa mu ngi ko fi door a am ñu gunge ko ba këram ñee di jooy ñii di euh, regretter te demagul donc loolu sant yàlla la di ko ñaanal ki nga xamante ne mooy président Bassirou may Faye moom it yàlla may ko mujj bu rafet ci nguur gi nga xamante ne dugg na ci ndax nag Sénégal dafa nakaree waxee Sénégal dafa nakaree gérer nekk nañ Sénégal boo xamante ne lu waaye neex def lu waaye neex wax te yaakaar naa dina ci indi ay saafara yu am ama solo ndax nag réew mi li ñu war a régler dafa bëri waaye nag li ci war a jiitu mooy raxas yi bokkaat dan nekk ndey ak bàyyi bàyyi saaga yi ak xaste yi te xam ne fii kenn gënul kenn ñun ñëpp yem ci yàllaf kenn gënul kenn te booloo ndax nag boole booloo doole mooy mooy mooy mooy mbooloo mooy doole way nañ ko te loolu mooy dëgg te bu ñu booloo mën nañ jële suñu Sénégal gii ci point euh, Y bi ko Macky euh, yóbbu yóbbu ko point Z te man gëm naa ne mën na nekk ndax jeunesse bi détermination bi ñu amoon ba xeex xuloo saaga jaral leen rey jaral leen lu ne ah war na leen mën a jaral lu law lu raw loolu réew mi réglé ku nekk respecté moromam surtout le respect le Sénégal a bu perdu beaucoup de choses perte nañ respect perte nañ kersa perte nañu worma on a perdu beaucoup de choses et tout ça on doit le rattraper donte day métti mais war nañ koo mën a indiwaat suñu ay jikkos parce que loolu moo doon def valeur nit. boo xamante ne mu ngi yeewoo Sénégal jikko yooyu il faut ñu indiwaat ko waxante lu rafet yéenante lu baax surtout sutura du jara ñaan la sutura dafa jara ñaan ak jàmm ak salaam donc yaakaar naa président Macky Sall yàlla na ko yàlla defal jàmm jangan